yéen ñi di seetaan vidéo bi man mi soxna Gédd Diop maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam. jërëjëf yaay booy ñëpp seete nañ ni ndaanaan kullu fadrin nga ci wàllu seet ci li nga xam ne tiim nga ko di layu ak peetaaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 Sénégal bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage. waaw soo de mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax rek fu mu toll nii nii instant bi nii nii ñoom ñëpp dañuy changé dañuy changé Marichou day changé. Eva day changé ñoom ñëpp ay changé Momo day changé ñoom ñëpp G ñoom ñëpp ay changé fu mu toll nii ñoom ñëpp dañuy changé ndax dañuy préparé waat beneen saison bu bees parce que fu mu toll nii bu saison cinq bi jeexee ñoom nee nañ foofu la Pod et Marichou di yem dootul amati kon dañuy defaat beneen saison bu bees fu mu toll nii boobu saison bu bees boobu na moom la ñuy préparé waat nag moo tax ñoom ñëpp dañuy changé. waaw loolu la quoi loolu la xam nga euh, bu ñuy doogay changé nii du leen neex ko du du du neex ñi ngi seetaan mais bu ñu ba ci kanam na day gis affaire bi def day neex day neex parce que boo dee xool Pod et Marichou ba muy doogay commencé ñu ko doon suivre bariwul woon mais gis ko léegi ñëpp koy suivre léegi parce que dañ cee euh, ba épisode yi commencé di bari xam nga dañ koy commencé bàyyi xel daal Ali Ali xam nga man moom ñu joué euh, film Sénégal si daal xam nga laa ci naw mooy Pa Yirim Yirim Seck waaw moom moom naa ko trop waaw moom ay na ko trop à part ça non man gars yi gars yi joué yenn daal man pour man ayuñu daal dëgg dëgg daal xaw ma loolu ñoom daal waaw war nañu xoolaat quoi waaw xanaa xanaa kii joué xanaa yu Touré moom mu joué. con con kii mm, mooy film boobu noonu jeex na sax de te tegu na ko sax YouTube bi mooy film boobu rek waaye idole waaw kooku tamit aay na de moom xaw na ay mais yërëm daal mooy pour man mais daal pour bu mel soo daal UG moom daal moom dese ay daal dese na ay quoi parce que ak parce que xam nga gars yi muy jëli daal xam nga dëgg-dëgg suñu suñu rôle daal waaw fi xam xam xam xam xam ñu baal na nag mais nag. ndax wi ne moom moom ah bu ma dese na ay de ay incha allah bro Modou Modou non F Diao moo guddi yaa ngi doxal ah Modou du amul njëriñ foofu amul njëriñ foofu c'est-à-dire yow moo tëral film sénégalais yi quoi dafa jël ñoo xamante ni xam nga xam nga film il faut nga am yenn comportement yi quoi nga am yenn rigueur yi tu mun koy joué mais du jóge ci àll bi soo sa caay di xam nga loolu def ñuy ree yaakaar ne ak kuy jeex non du foofu xam nga et puis moom Doudou moom da ko war a écarter film bi dafa fa dara man rek wax du ko wax de keneen ma jigéen ñi moom mbari soo sokat bi dafa fa dara je vous Eva moom xaw na tane soxakat bi sax waaw Eva tane na mais ñuy suuseerul dëgg dëgg dëgg mooy but yi waaw but ak bajinu pot bi ci waa ak ak ak ak ma beneen feneen beneen jànq boobu mu tudd sax wala lakkal boobu noonu ana race bi xaw ma waaw Francis euh, wax dëgg la li dëgg bu wér la waaw euh, duudu moom mooy loolu moom boo xoolee sax commencement ba fin yëpp ay affaire comédien rek la fay def quoi dafa def mu am sens mooy euh, buñ doon juger pot mu ñëw indi kele bi waaw foofu moom def na fa loo xam ne moom euh, am na sens moom waaye G tamit euh, joxuñu ko joxuñu ko euh, kii biñ ko war a jox joxuñu ko parce que liñ ko joxee noonu mu koy G noonu dafa xaw daf cee xaw a daf cee xaw tooy quoi daf cee xaw yambare tuuti daal wanewu ci boppam carrément daf cee xaw a yambar tuuti ndax li biiri doon def loolu G moo ko waroon def G moo waroon def loolu mais daf dee xaw kii daf dee xaw a faible foofu moom war nañ koo gën a mën waaw moom daal war nañoo gën a mën a liggéeyaat daal gën a mën a liggéeyaat xoolaat seen bopp daal xool ñi nga xamante ne maam dañ faa nekk te amuñu kii amuñu amuñu njëriñ ñu ñu génne lañ ko ñi nga xamante ne tamit dañ faa nekk am njëriñ di di doxal affaire bi ñu bàyyi leen ko ñu ñu ñu gën doxal loolu daal laa gis no c'est que moomoo yow kii ngay wax z parce que gis nga rôle yooyu moo parce que ñi lii troupe bi ñi si nekk dëgg dëgg dëgg mooy Marichou Eva Biti moomoo Pod ak Billy xam nga ñoo ñëw si gën a nekk nekk valable Ali jégalu dama génnoon xam nga dama dugg di génn quoi dëgg la waaw li nga wax ni des na c'est et puis man xam nga am war a dañ leen war a écarter quoi ay yom duudu ñooñu ñooñu dafa foofu rek xam nga am amul njëriñ waaw eh, gaan boobu tudd sax eh, gaan boobu ponkal boobu seen mbër boobu xaw ma ko daanal moom rek. kooku noonu man pour moi joué rôle am dëgg-dëgg jox na gars yi nga rôle am et puis moom gars yi da koo tàggataat xam nga moom moo tamit na xaalifa des dese na tuuti rek waaw dese na tuuti maam moom gars yi da koo tàggataat waaw gars yi mbéy moom sa waaw quoi te bëgg boo xaw ma xaw ma nga waxee waaw kooku moom saa mu ngi joué rôle am nice bëri na daal na bëri na bëri na bëri na. waaw foo ñu tàggatoo quoi foo foo foo ñuy changé waat ci am ñu xaw dañuy écarté ak ñoom dóor yu concert boobu ñu war a fi dara ay saa yu comédien xam nga joxuñu askan wi njëriñ loo xam ne xam nga mën nañ ci mën nañ ci mën nañ ci am am maanaam lu ñu kii quoi loolu dañ ci xam ne amal nañ njëriñ saa dóor yooyu loolu tu vois waaye pour man ah ou bien yow moom gisoo ko noonu. waaw euh, euh, grand Ziz euh, liggéey bi des na nag liggéey bi des na des na lu bari bari sax des na de des na lu bari mais ñoom yaakaar naa ñoom ñu ngi si de ngi si ñu ngi si ngi si ndax ñoom buñ kiiwee nii buñ si théâtre nii ba pare nii après dañuy xool défaut yi défaut yi ñuy def yëpp dañ koy xool après ñu commencé ko kiiwaat xam nga ñu ngi si ñu ngi si liggéey bi te gëm naa ne moom changement dina am moom gëm naa ne changement dina am ndax ñoom xam nañ ne monde bi yëpp ñu ngi leen suivre waaw grand Aziz boo gisee sax Pod wax na ko Pod wax na ko ci vidéo bi ñoom dañuy changé sax dañuy changé parce que Pod nee na saison bi bu jeexee moom foofu lay yem Pod et Marichou moom foofu lay yem dootul amati foofu lay yem léegi nag dañuy defaat beneen eh, beneen épisode eh, bu bees de tour bi xam nga jéebewaat ko ci ci ci beneen kii daal ci beneen façon moo tax boo xoolee nee eh, nañ dañuy bëgg dañuy bëgg a kii marisu dañ koy bëgg a tàggat ci yenn yi quoi xam nga dañ koy bëgg a tàggat ci yenn yi ay ñoom marisu ak ñoom Eva ñoom momo ñoom kii il faut ñu changé waaw il faut ñu changé dañ leen di bëgg a changé quoi léegi nag pour pour changement boobu noonu am nag il faut ñu def saison cinq changé leen ci pour ñu mën a préparer beneen beneen saison bu bees beneen épisode bu bees ok moom moom moom mën naa tey ak boo mën na koo tey parce que xam naa plan boobu yëpp xam na plan ak boo yëpp parce que boo dee xool euh, bili moom moo euh, bili moom doon àndal moo tax mu xam plan ak boo yëpp mën na koo kii de na koo effacer de waaw te boobaa du nekk moom moo kase nga amaat ñeneen ñoo xamante ne ñoo jàppale ko waaw ay comme xam ak ñeneen ak ñeneen bu boobaa nekk ci ginnaaw mën na ko daaneel de mën naa daaneel ak boo de moom moom mën naa daaneel ak boo man waxuma loolu kon instant bi saison bi day waaj am instant bi nii wala la yow mi borom waaw loolu laa yaakaar nag moom moom lay doon de moom moom lay doon parce que di tax ñu ñu ñu wane moom moo tiire ko xam ak yooyu noonu naa ne moom ah, bu ñëwaatee moom moom moom lay doon moom moom moom lay nekk moom. ak ak ak z nga xam naa z moom bu ñëwee ci ginnaaw moom lay topp non Adi man pour man ñoom ñaar man exact nag pour ko dee nag dañ ko pële quoi ñoom ñaar da instant yi ndax ñoom kenn pressé wul te film yi pour mu neex c'est vrai bi li mën a dee su dee albo xam kon moom moom mooy nekk place bi lii mais moom moo mënul mënul albo non ak boo deewul de ak boo deewul mais mi ngi woon a mi ngi woon hôpital quoi mi ngi woon hôpital mais deewul moom moo ci kii bi ko tiire ci mbagg bi ci mbagg bi ko tiire euh, biir moom moo ci dee ak boo hôpital la hôpital la mujjee woon nekk ndax boo xoolee après bi kii bi kii moom bu mu duggee noonu taal ci taal oto bi taal royam bi ñu ngi ko doon waxaat ñu ngi ko doon waxaat naa am na kenn ku ci euh, génn àdduna am na kenn koo xamante ne tamit sonn na loolu muy hôpital te boo xoolee ñu ko doon wax ci rajo moomu bi kooku ak boola ak boobu moom moo tudd waaw gis nga de man saison cinq moom man moom départ bi na neex si man tellement que mooy loolu <laughs> te xanaa xamoo ñëpp dañ koy jéem a kar du rate kenn ndax trace mu bàyyi il faut mu accomplir gars yi mën a xam fu ñu mujjee. cleave comme Alioune wax rek Albo ak Billy kan xam kan kan moo si on sait pas on sait jamais <laughs> mais il faut ñu seeraan ñu xam fu mu mujjee waa mais moom machallah allah moom dina dina tàng te neex.